soo xoolee fulk bu kër sëñ Saliou Touré da koy couvrir te kenn du te duñ laaj kenn dara lu fa nekk ci employé doy na sëkk te ñëpp ñoo leen di dundal ñoo leen di may ñuy lekk ñuy naan te lépp dafa aaju ci kaw Pape Doumbouya mooy précise nañ leen jàppale président jàppale leen ñu am signal ndax loolu day jàppale état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 فتبارك الله tey ñoo bëgg a wax ak ki nga xamante ni bii la yàlla tabbi ci kaw réew mi muy président alhaji Macky Sall yal na yàlla gën koo jàppale ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa tubaarakallahu li waral tey sunu jataay bii mbooleem kilifa yu tedd yi nga xamante ni ñëw nañu fekke ko fii ci barab bu sell bii ci njiital imam Cheikh Omar Dem di sëtu maam Cheikh Omar Futuy Taal waaye Serigne Boubacar Njegéen moom Serigne Ousmane Njegéen moom Alaaji Ahmad Boro toog fa tabarakallahu Serigne Ibrahima Ndiaye Daabaay mii nga xamante ni bii moom Serigne Fallou Ndiaye Daabaay moom Cheikh Moon Ndiaye Daabaay ñu ànd koog nag ki nga xamante ni bii kenn dootu ñu ko présenté ci réew mi ak ci bitim réew muy Serigne Dam Sakho di sëtu maam Alaaji Ibrahima saako فتبارك الله مامم نبري مين ميميا مام شيخ سيد الحاج مالك مجارك مام كون تبارك الله نيلن كوي نيوليت مامي نفقو اك امام بابا كرسين فتبارك الله دي دي كو خامني دي بروم خام خام دي بروم تير واي امام جانخيت فتبارك الله مامي دون سوتو شيخ الاسلام شيخ ابراهيم نياس فتبارك الله مامي نيو فك سي لي كون بريزيدان ني دي لا نيان تاي àdduna xam nañu leen Cees xam nañu leen réew mi xam nañu leen ñoo ñëw tey fas yéene nag tele yi nga xamante ni bii ñi ngi Cees bëgg ma nga may leen signal jox leen TNT bi TNT bi lañuy laaj tey jii ku mel ni waa groupe précise ci njiital directeur ba alxaaji Papa Doumbia di nit koo xam ni nit ku mën a def social di nit koo xam ni nit ku mën a taxawu nit di nit koo xamante ni bii nit ku mën a dem ak jomi boppam ak moyey boppam li ma koy faral naan ko may junni na jël ndax ci àll bi ngay yendu fa ngay fanaan fa tubaarakallaahu télé bi nga xam ni moom la ubbi muy Prestige TV fa tubaarakallaahu ñu amaat li nga xamante ni bi moo di rajo bi quatre point cinq fa tubaarakallaahu wolof ne na ku yokkul yaa wàññi Pape Doumbouya bëgg nañu Thiès Prestige du muy président Macky Sall nga may leen li nga xam ni moo di TNT jox signal bi ak mbooleem tele yi nga xamante ni bi nekk nañu ci dëkk bi ndax kat yaa ni employé des jeunes ndaw ñi bu ñu amoon ci lu ñu jàpp kenn neewul nag ndaw ñi amuñu ci lu ñu jàpp président ku la xam yow xam nga li xam ni liggéey nga liggéey bu am solo ku la xam xam ni liggéey nga liggéey bu mucc ayib ku la xam xam ni réew mi bi nga ci jotee ak bi nga ci jotagul ah ku teew ci réew mi xam ne réew mi nag émergent na ndax nag yow sa taxawaay te wolof njaay naan lu ni fang kenn di ko jeex subaak ngoon guddeeg bëccëg yaa ngi liggéey ci réew mi lu am solo waaye nag li sëriñ daam la wax léegi xutbul watan min al iman bëgg sa réew dafa bokk ci ngëm yàlla te ñun Cees lañu am bu dëkk réew mi du Sénégal la ñu am bu senegal doon takk xamuñu fu ñu jëm fii lañu am am mënuñoo génn réew mi amuñu ay passeport diplomate mënuñoo dem fenn Sénégal gi la ñu mën a toog kon réew mi daal liñ fi bëgg mooy jàmm jàmm jiñ fa bëgg nag mooy incha allahu ndaw ñi boo mayee tele yi tey jii pay ma tudd ko mel ni précise boo ko mayee TNT mu gën a yokk personnel télé boo xamante ni bi lu mat cinquante personnes chaque mois ñu taxaw ñu fay leen seen salaire toj seen salaire du tardé le vingt-huit pile ñu yëkkati seen alal jox leen kenn ku ci nekk nga dem yóbbu sa kër waaw kooku bu yokkee ah Sénégal yaakaar naa ni Thiès dana gën a yokk ndaw ñi daañu gën a am ci loo xamante ni bii loolu la ñu jàpp kon président suñ TNT la ñu bëgg daal nga jox ñu ko ñu ngi la koy ñaan nag ci yar di la ko ñaan ci teggin ndax président nga boo xamante ni bii réew mépp bàyyi nañ la xel sagam réew yi nga xamante ni bii bokkuñu la bokk du Sénégal fa ngay dem président yi di la nuyu di la jox sa cër bu mat sëkk masaana kon réew mi nga xam ni moo di Sénégal président Macky Sall bëgg nañu daal TNT bi nga jox ko précise bi nga xamante ni bi Pape Doumbouya moo ko jiite fa tabarakallahu yal na yàlla defal ñu jàmm yal na yàlla def sutura ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mouvement bi nag ñu ngi ñuy toog ma religieux pour l'émergence yàgg laa sonnal subaak ngoon guddeeg bëccëg lépp lu ñu xam ni daf lay yokk ñu ànd ci ba mu mat sëkk lépp lu ñu xam ni loo xamante ni bi baaxul ci yow danaan taxaw démentir loolu ñu lay liggéeyal nag ñoom ci liggéey bu am solo ci digg dëkk bi rawatina ki nga xam ne imam Omar dem jiite ko fa tubaarakallahu président na nga yëg ni daal télé yi nga xamante ni bi nekk nañu Thiès waaye rawatina précise di nga xamante ni bi Pape Doumbouya moo ko jiite bëgg nañu daal TNT bi mu jot ko ndax bu ko jotee incha allahu li nga bëgg ci réew mi da yàlla dina la ko defal yal yàlla defal ñu dégg ak topp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa wa ma zalika allah aziz bi salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu mel ne rek yàlla dafa dogal nii الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء بن سن تاتشو موم لا ريو ام موي سوكانديكو تي اي نداوم ريو ييغا خامني نك نيو غنا تاخاو سين زينس ريو يوي نيو غنا جيم تا كانام ñoo gën a avancé réew moomu tabaarakallah moo gën a yaakaaru moom la itam investisseurs yi gën a jublu te Sénégal yàlla dogal na ay ndaw a ngi fi waaye ndaw yoo xam ne ñu bëgg seen réew lañu ndax koo xam ni ba nga jàngee ba noppi moo xam alquran la moo xam nasaraan nga mënoon ngaa xaar sukkandiku ci état wala ngay taala ko toj waaye nga tàmbale ci moyens yu néew yi ñu tàmbalee tabaarakallahu bay taxawal li ñu taxawal tey di entreprise jël ci ay njabootu réew mi ñu ciy liggéey kooku état lay liggéeyal état lay jàppale kon nag ñoo ngi ñaanaat président de la république tabarakallahu mu bàyyiwaat xel ndaw ñooñu te mooy sunu mbokk yi nga xam ni ñoo fi nekk te yore wàllu télévision yi nga xam ni ñoom ñoo gën a jege askan bi ñoom ñooy alerter presque lu bari yuy xew ci biir ruq yeeg ruq-ruqaat yi ñoo koy siiwal ba tabaarakallah takk der yi wala yoon mën cee am yoon jëfandiku ca nam ca war a jëfandiku te du mel nam war a mel kon ku mel noonu dëkk ci di alerter ak tabaarakallah ak di wane lu baax ndax xale yu responsable lañu ñu xam seen liggéey lañu ñu xam seen cër lañu tabaarakallah bu ñu defee seeni déem a ki Dakar ba taxawal li ñu taxawal te mooy ay télévision lu ci mel ni prestige niñ ko waxee suñu mbokk Dumya nga xam ni léegi euh, prestige FM sax ubbi na. ci télévision la tàmbale woon léegi dem na ba am ba am rajo ñoo ngi ñaan président de la république ne leen jox signal tabaarakallah ñu continuer mën a liggéeyal Sénégal loolu daal ñoo ngi koy ñaan ci turu doomu daara yëpp di ko ñaan itam ci turu xalif généraux yi ci réew mi yëpp di ñaan président de la république ni ko daal nañu dimbali xale yi nañu dimbali télévision yi Cees yi ñu am signal loolu moo waral suñu jotaay bi ñoo ko koy laaj itam ci njëkk ak ci teraang ak ci yar xam ni jaadu na te itam bu loolu amul xale yi dañuy mujj dem chômage te buñ demee chômage itam dañuy mujj nekkaat ci mbedd mi di taxawaalu kon góorgóorlu nañu ba taxaw président na leen jàppale loolu daal moo ci doon suñu kàddu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaye tey jii mbir mi ñuy def dëgg yàlla dafa am ci ñun solo lool am ci ñun importance ba tax ñu jël suñ kàddu gi ah ñun nag eh, ñu ngi fi teew. Euh, teew fi ci njabootu kër Cheikh Mor Ndiaye daa bay ndaxte Pape Doumbouya mi nga xamante ni mooy directeur Prestige wax dëgg yàlla ni ko ñëpp waxee rek ak télé yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi danoo am taxawaay bu am solo boo xam taxaw nañ ko ci dëkk bi waaye taxaw ko ci kër kilifa diine yi ni ko sëñ dem waxe waxee léegi rek ni Pape Doumbouya Prestige euh, fulk bi am ko sëñ Saliou Touré euh, chaque année dañuy dem jël ko di ko def en te loolu lépp ñu ngi koy defee ci seen i moyenu bopp euh, te noonu mu ko defee kër Serigne Saliou Touré daanaka noonu la ko defee ci kër kilifa diine yëpp ànd ak télé yi fi nekk kon nag ñu ngi ñaan ñi nga xamante ni ñooy njiitu réew mi ak ñi nga xamante ni ñoo yor li nga xamante ni moom lañ leen di ñaan ni ko sëñ Boubacar waxee rek dañ leen koy ñaan ci diggante jullit ak moromam euh, ñu jàppale leen ndaxte ñoom wax dëgg yàlla seen taxawaay ci dëkk bi am na solo lool ndaxte jël nañ ay ndaw di leen liggéeyloo te it ni ko sëñ Boubacar waxe rek sun bàyyi won ndaw yoy man nañu taxawaalu ci ci mbedd yi te su boba du doon lu gën ci dëkk bi kon nak ñu ngi ñaan président de la république eh, mu jàppale ñi nga xamanteni télé yi nga xamni ñoo nekk ci dëkk bi eh, jàppale leen ba signal yi bi nga xamanteni mom la ni ñaan ñu ñu man ka am ko defé dal lool moy cadeau yi nga xamanteni mom la mom la mom la lañ woon di den ko ci di den ko ci sanni ñu jog di wax li ni wax nak war nañu ko wax ñi koy waxit it mën nañu ko wax ndax ci dëkk bi lañu bokk damay faral di wax ne dëkk nu Guinée dëkk nu Côte d'Ivoire Sénégal lañu dëkk Thiès lañu bokk te waan sir al aqrabin mbay ci sawewu tànk 14 régions yi ci Sénégal yépp yëg nañu ne benn amu ci signal te bu nu jëlee lépp yóbbu ko ndakaaru mooy capital bi waaye Thiès mooy buntu capital kon suñu fi amee ay ndaw yu liggéey seen alal ba waroon koo jël jëfandikoo ko ci seen bopp jox ko seenu njaboot ko fa ko service njaboot gi président de la république yaay président yep. yépp lii nuy wax it yow lañ koy adressé soññu ñu la ndax du bariwut looy fàtte waaye dañ lay fàttali loo xam ne xam nañ ne fàttiwoo ko muy Cees gi am ay ndaw yu fi jël seen alal wut fi ay entreprise rawatina ci fii nga xam ne ñun ci lañuy liggéey muy média bi dégg nga ñi ñu leen tudd ak ñi ñu tuddul dégg nga ñi ñu lim ak ñi ñu limagul ñoom ñëpp buñ leen boolee buñ leen joxoon ay signal lu mu gàtt-gàtt ku ci nekk lu mu gàtt-gàtt ku ci nekk di nga jël lu mu gàtt-gàtt fukki nit ku jël fukki nit nag ci am réew soo ci amee juróom yaakaar naa ne dana wàññi

Thiès nag lañ ko commencé ndax cees la ñu dëkk waaye ni ñu koy ñaanale Thiès buñ sañoon Sénégal 14 régions yépp fu ci nekk am ko mu gën ko yombal beneen bi ci nga gën a taxaw waa Thiès leader yi fi nekk ndaw ñiy góorgóorlu jigéen ñi fi nekk askan wi nga dolli leen a bàyyi xel ndax kat réew mi metti na te gis nga lii fi xew pour lu ko fi mën a jëlee mooy ndaw yi nga xam ne ñi ngi toog amuñu am xëy ñu wutal leen am xëy loolu nag bu ñu ko waxee ñii nu tudd lim leen te ñu dëkk Cees ñi ngi ciy bay seen waar woo leen dooleel leen woo leen dolli leen loolu boo ko defee incha allahu dana yokk lu bari waaye daal dugalal signal Cees jox ko prestige fulku bii di am fii dina gis nañu mi ngi ciy taxaw di am kër sëñ Saliou Touré mi fi toogal kër Cheikhul Khadim kon dolli leen a jàppale dolli leen a bàyyi xel دولي لنا تخو يلا يلا جابل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته